tant que kii monsieur le maire. waaw tamit yow sax daal soo doon def. am na de am na de. vérifié waatal waay Donc, je suis commandant Martial John, commandant le groupement d'incendie et de donc nous avons à 20h23 pour un feu au niveau de la radio Walfadjiri. À 20h29, on avait les premiers éléments au niveau du studio d'enregistrement de cette structure et on a procédé aux premières opérations d'extinction. Donc présentement, le feu est éteint et on est à la phase des blés des garnissages. Donc c'est une phase qui va prendre un peu de temps parce que euh, on a du matériel facilement inflammable qui est présent dans ce local et l'opération risque de prendre du temps. Le feu est éteint. Et je qu'on est à la phase des blés de garnissage qui risque de prendre du temps, qui fait la présence de matériel facilement inflammable sur les lieux. Non, on n'a pas eu de dégâts humains. Donc pour cette intervention, on a mobilisé déjà trois engins d'incendie, une ambulance, cinq véhicules d'intervention légers. Et il est à signaler qu'on a eu quand même d'autres difficultés, notamment l'accessibilité du local. On a été obligé de créer une trouée au niveau du mur pour pouvoir accéder à l'intérieur du local. C'est combien de studios le studio d'enregistrement de, de la terre, des renseignements qu'on La cause, on ne peut pas la donner. Peut-être après, avec l'enquête de la police, ils pourront déterminer cette cause-là. Donc, euh, on a 20 pour benn lakk bu am ci locaux Walfadjri suñu premier élément yi vingt heures trente cinq la ñu agsi commencé fay lakk bi donc euh, présentement fay nañ lakk bi te ñu ngi phase déblai dégarnissage mooy dañuy dindi lépp loo xamante ni mën na tàkkat ay éponge tout ce qui est rembourré tout ce qui est loolu yëpp dañ koy génne donc loolu dina jël temps donc euh, intervention bi mobiliser nañ ñetti engin d'incendie benn ambulance juróomi oto yoo xamante ni dañ leen tuddee des véhicules d'intervention légers donc xawoon nañ am jafe-jafe nag pour accéder au niveau du local à cause de l'encombrement donc il a fallu même que ñu bëtt miir bi pour que éléments yi mën a jaar foofu noonu pour mën a fay lakk-lakk. bon le bilan dégâts matériels mënuñu ko estimer mais c'est important quand mais du point de vue bilan humain on n'a pas de victime commandant martial. commandant déclaration du, euh, commandant. martial. donc martial euh, Ndion moo doon euh, addu wax ne ne daal. feu bi daanaka maîtriser nañ ko mais dañoo war mbir mi parce que tey biir dafa am ay fil làkk yi nga xam ne nii daal day yomb tàkk moo tax faw ñu sécuriser ko daal di koy du amati benn benn risque donc yooyu kàddu nee na nag cause yi mënuñu koo joxe parce que il faut ab enquête police moo ko mën a déterminer il n'y a pas eu de dégâts yu ne amul benn nit bu ci loru mais quand même am na ay dégâts matériels yu a dugg ci ñu dugg ci wala pare nga dugg ci biir wala dañuy dugg ci studio

waaw waaw lu ñu dugg ah a dugg xool ba xam dinañu am tamit ñu donc ñu jéem a jege parce que on nous signale que ne am na ku ñu ne rejet bi am na lu ci jot a tàkk tuuti donc ñu jéem a avancé ba xam dinañu mën a accéder ci studio bi nga xam ne nii moo amoon na instante bi on va c'est assez compliqué. kon mu ngi noonu donc euh, mënuñu accéder ci